les femmes à dire non parce qu'il faut apprendre à dire non waaw ah, loolu jàng du lu ñëw rek nga nangu ko nit da am capacité wax waaw am capacité wax déet da wax ci et sans complexe et ça il faut l'apprendre et pour avoir cette capacité de dire non il faut être très forte dans la tête et avoir une autonomie financière parce que ça a un wax déet dafa cher tu prends un avocat c'est cher tu payes de tests d'ADN c'est cher sans compter les déplacements à n'en plus finir sans compter te yàlla daf ma may chance ma sama rajo bo mais su fekkoon dama loué temps d'antenne ñaata la ñaata la ma naroon dikkee wala ma jël page yu jàmbur bu siiw ñaata la a naroon dikkee tout ça ça a un coût kon apprenez à être autonome vous les femmes qui me sont qui en train de me suivre apprenez à être autonome dafa nekk loo xam ne dafa am solo il faut autonome émission bi ñu ngi koy def mais am na góor ñu bari dañoo ragal waaw góor ñu bëri dañoo ragal góor ñu bëri bëgguñu sa problème bi réglé wu parce que ngeen ne ah la loi nous protège on fera en sorte que la loi va protéger les enfants. On fera en sorte que ces enfants soient protégés de la naissance à leur majorité. am na ñu mun 27 ans am na ñu mun 35 ans am na buñ buñ durant toute leur vie parce que avoir pris la décision sage de fermer la bouche et de ne pas en parler est-ce que vous avez le droit de fermer la bouche ñi ma doon woo di ma ne buñ wax est-ce que am nañu droit woo ma ne ma buy wax. Est-ce que moi j'ai le droit de me taire je pense que non j'ai pas le droit de me taire li ma def nii tey dama si dama soulagé li ma def nii tey dama kontaan parce que ñu bëri tey gis nañu seen bopp à travers Ndella Madior ñu bëri tey say góor gis nañu seen bopp à travers le prédateur sexuel Sada Kane et tant d'autres man Sada Kane laa xam prédateur sexuel seen naa tamit d'autres prédateurs sexuels qui utilisent l'État tëddee xale yi daf ay chantage promotion canapé arrêtez arrêtez arrêtez donc euh, Sada Kane y en a beaucoup y en a beaucoup au Sénégal il a beaucoup de Sada Kane au Sénégal et c'est le président de la République Macky Sall qui doit prendre ce, euh, problème en main euh, pour la protection des enfants du Sénégal. Ça, c'est le minimum. sanni tous les dimanches, à partir de 13h désormais, il y en a dans les réseaux sociaux, en direct à la radio et à la télévision. Ce qu'on a fait, day nekk benn genre pas ndëpp collectif où les gens pourront parler parce qu'il faut que les les femmes se lâchent faut que ñuy wax léegi test d'ADN rek moo fi solution ku ma fi jàkkaarloo bu ma wax ma quoi que ce soit dinaa la mbeg mbeg boo xam ne ba dina tukki dootoo ko fàtte ki je suis là Ndella Madior pour défendre les enfants du Sénégal maa ngi xaar kenn koo xam ne dafay ñëw di ma wax quoi que ce soit su ma la mbagee laa wax dootoo jàkkaarloo ak Ndella Madior di ko wax xoma émission bi warloo ko def lan lan lan parce que je vous sens à distance. Ces imbécilités-là et des gens imbéciles qui vont m'appeler pour quoi que ce soit, je vais leur casser la gueule. Est-ce que vous m'entendez? xale yii di ñëw dañ leen war a toppatoo correctement jur sànni moo fi dul amati Sénégal ñu jël kii di ñëw salaamaaleykum ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu bu baax. Ça va très bien vous avez la parole vous êtes en direct. d'accord merci beaucoup. man de dama bëggoon dugg rek ci témoignage bi. ndeysaan te xam ni dal saama boobu. man bi aw personne la dal. ndeysaan. di encouragé nag. di encouragé saa moomu. parce que méttiwul. Mm-hmm. yombul du moins. Mm-hmm. ñaan na yàlla wala ba gis sa papa. di ko gis sa yaay. waaw. ndax dafa neex. Mhm. te dafa seet xol. Mhm. dara bi lu metti nag. Mhm. nga màgg am âge yi. naan jiw yaay sama papa mu naan la dinaa wax ak sa yaay. ndeysaan faut pas pleurer. am kersu. day dina nettali yenn yi. Mm-hmm. bu sësee ba sës yow muy jigéen muy jigéen da ngay taxaw gëdëm ko. ko yaay ma lii dëgg. ndeysaan soo ko lii dëgg. Mm-hmm. nga woo sa baay sa baay di la këli mm-hmm. li ma ko koy mujj wax démb si guddi la lii dafa mel ni sama gént sama lanc nga lokkate xam ni ñu koy waxee ci wolof. ndeysaan. démb ci guddi laa ko message mu ngi ba États-Unis. ma ne ko wax ma benn yoon bu dee yaay sama baay. ndeysaan ma ko bu dee doon sama baay nga wax ma ko. ndeysaan ma xam ndeysaan. ndax yàgg naa dund sama baay j'ai vingt-huit ans maintenant. Mm-hmm. tiituma loolu ragaluma loolu parce que c'est une fille joviale. ndeysaan sama yaay yar na ma fi ma a yaree moo mën góor. Mm-hmm. donc tey je je suis de tout cœur ak li nga xam ni yaa ngi ko laaj xale bu ndaw laa. Mm-hmm. waaye dama am fu la xam li ma bëgg. tey jigéen bu am góor boo xam ne reconnaître wul doomam na ko takk see takk ndikam liggéey. Mhm. parce que dama koy xoolee ni sama yaay jar naa am vingt huit ans léegi sama papa mosuma jëndal si. ndeysaan. xaw ma Amadou Baye. ndeysaan Amadou yaay laa. Mhm. donc jigéen ñi am leen fit. waaw te xam ne lu yàlla neen la ragal yëpp yàlla la. bravo à ta vraiment j'ai vingt huit ans tey. oui wallaahi ak yàlla ma fekkee tabaski dëgg. ndeysaan sama papa mosuma lépp sama yaay la. ndeysaan. donc tey su ma amee fit taxaw mais nag da ngay dëgër mais loo dëgër dëgër xale ngay doon jigéen ngay doon da ngay dëgg mhm. juste rek. Mhm. am sa la ci bopp. Mhm. ndeysaan neexal la loolu day sedd xol. pour nous ñi xam ne loolu moo ñu dal. et courage à nous et merci beaucoup. ndeysaan ndeysaan oh voilà émission bi daw na yaram. mais je ne verserai aucune larme. aucune larme dépassé naa jooy man day la ma jooy naa jooy jooy naa nag de mais jooyatuma duma mus a jooyati salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ndéli maa ngi fi rek comment allez maa ngi lay ça va alhamdulilah maa ngi lay woowee depuis Maroc maa ngi suivre sa émission bi. waa ndeysaan. di ko rafetlu. di la wax ni. j'ai vécu la même chose. J'ai vécu la même chose. Mon fils est né en 2005. Nous avons déclaré presque. ba muy am ba muy am 14 ans ba muy am 13 ans lañ ko soog a déclaré. Oh. heureusement parce que maamam moo bañoon maamam moo. ndeysaan. ma maa ngi woo parce que dama am beneen combat ak sama ex jëkkër. Mm-hmm. ak sama ex jëkkër. Euh, parce que depuis on a divorcé en 2014. Mm -hmm. 2017 ba tey il m'empêche de voir mon fils. c'est pas normal prétexte moom milliardaire la. et milliardaire la xam nga milliardaire kenn du dem ak moom tribunal fukki avocat lay jël te ko sa kaw ci dugg Sénégal. tu te rends compte. ci Sénégal loolu du am. Mhm. milliardaires yi ak personnalité publique yi dañ leen di dénoncer ba àdduna ñëpp xam seen vrai visage. Mhm. donc yow lii nii gis naa ay commentaires yoo xam ne ay femmes nekk naan waaw lii dëgg la waaw mm-hmm. sutura lii sutura amul. Mm-hmm. góor boo xam ne da am ak jigéen doom. Mm-hmm. da ko war a reconnaître. te muy dëgg baalu ko jigéen kii dàmpal ko amul jigéen bay oyof sër amul góor bay oyof sër. jigéen bu fi góor benn jigéen wala benn góor bu fi wax ni ku am doom ak góor te mariage yoo da nga oyof sër. dafa fekk sa ndey ak sa baay ñoo gën a oyof sër. te muy dëgg dénoncé ñeneen ak ñeneen amuñu woon courage yu dénoncé ñu ngi ne pat mhm. ñu bëree bëree bëri tey ñu ngi may envoyé message naan ma femme bi li mu def nii te man maa ngi nii yor sama doom kenn déclaré wu ko kenn déclaré wu ko mënumaa wax donc yow tu as réveillé beaucoup de femmes yoo xam ne tey elles sont prêtes à mener ce combat parce qu'on a vécu la même chose Absolument. on a vécu la même chose Absolument. et jigéen ñi biir Sénégal ñu ngi vivre loo xam ne mënuñu mhm. koo wax kenn mhm. parce que boo demee tribunal xam nañ lu chose alhamdulilah sama problème réglé na mais des na beneen combat contre la famille Dia unité cinq Parcelles Assainies lii direct la dama koy wax ñëpp dégg ko mm-hmm. unité cinq Parcelles Assainies mi ngi téye sama doom ne du ma ko gis mm-hmm. ban prétexte pour lan nit ku tukki ñibbi si ñëw war a gis doomam mm-hmm. ngeen ne non du gis doomam ndeysaan ndeysaan laal nga ay xol yu bari bari ba nga xam ne xeex bi doo si nekk yow kese mhm. xeex bi doo si nekk yow kese ñun ñëpp dinañ si jàpp ndax suñu xeex la ndeysaan man loolu rek laa amoon di wax ndeysaan waaw ndeysaan bu paasee lii nag incha mm. allah dinañu déggante pour sama combat bi nga xam ne dama koo war a publier ba adduna ñëpp dégg ko mhm. ba ñëpp xam ne la famille Dia siis ba la famille Dia bi nga xam ne moo dëkk Parcelles Assainies mhm. nekk virage. sama doom nga ko téye depuis depuis deux mille quinze. Oh. ne du ma bu yeboo oh. kon bu ñu dégg dégloo audio bii nag comme que il s'agit de affaire doom mhm. lépp day yeewu ndax mhm. jigéen bu fekkee jigéen jigéen bu baax nga mhm. li Madior Diouf def nii war na la war na yëngal sa àdduna war na yëngal sa xol surtout ko nga dund ko surtout que nga dund ko man sama doom juddu na deux mille cinq kenn déclaré ko bu mm-hmm. léegi nag mu des beneen combat pour sama beneen doom góor ñu lu leen neex la ñuy def Sénégal parce que amul loi boo xam ne da ngay jóg ñu fase la mm-hmm. da jóg ñu sa bagage ci mm-hmm. biti da ngay jóg ñu jël sa doom ku góor gi boo demee dem bi neexu ko pour yàq sa àdduna sa doom lay jël soit nga dellu si ñëw toog soit mu toroxal la loolu rek moo fi am pour lan nañu wax nañu wax donc man lii bu passé man dinaa la woo personnellement jox la ay information yoo xam ne bu may def direct sa àdduna bi di ma dégg di nga def attention di def attention merci beaucoup merci voilà ndeysaan ndeysaan ndeysaan allo pareegul ndeysaan voilà mais bon wax na l'essentiel voilà wax na l'essentiel daf bëggoon wax combat bi doo si wéet bi kay moom fu mu ne nii dafa ubbi bëtu ñëpp lii kenn du ko du ko arrêté ci benn émission tous les dimanches à partir de 13h maa leen ko promettre 13h nag ba 19h. man man dama ñeme lu métti tous les dimanches de 13h à 19h man ak yéen la foo munti nekk nag si àddina bi mun a nekk Kédougou mun a nekk États-Unis mun a nekk Japon mun a nekk Chine mun a nekk Saly mun a nekk Sacré-Cœur tous les dimanches je vous promets de 13h à 19h Diouf Sarr on va régler tous les problèmes sama WhatsApp joxe naa ko envoyé leen ma seeni contact ñu recenser xale yi. xale yi nga xam ne dañuy nekk ci situation yi ñoom ñëpp billaahi dinaa ko réglé billaahi wallaahi tàllaahi dinañ ko réglé waaw billaahi Macky Sall su ko réglé wulee ma xam ne kon xolam dëgër na su ko réglé wulee man dee la maa jóg Diouf billaahi dinaa ko réglé à sa place ndax lii du dëgg du yoon Sénégal donc. Euh, voilà bon Sénégal lu mu bind moom c'est pas seulement Aïssatou Diop Fall kese mais Kodou Mohamed Cissé euh, seen Buzz cent pour cent cent pour cent Buzz am na encore beneen site boo xam ne ñëwoon na si wax dinaa ko retrouver su ko defee ñu xam ne sooy interviewé nit dafa am foo yem bàyyi leen di ñëw di interviewé di di dugg si ay mbootu mbóot te amay mbóot yu gën a garaaw kan mooy seen bàyyi kan mooy seen ndey maa ko wax bu leen ma tax a daf siiseloo de damay siiseloo ba mu saf sàpp en privé mais bu leen ma yëngal kan mooy seen baay kan mooy seen ndey bàyyi leen di ñëw di interviewé te seen bàyyi xamu leen ko seen ndey xamu leen ko maa ko wax bu leen ma yëngal maa gën a garaaw Assane Diouf téeméeri yoon maa gën a garaaw siiseloo téeméeri yoon mais doo leen ko dégg mukk ma wax ko si kaw centenaire bii laa juddoo kii si frotte si pic j'ai déposé les armes en matière d'insulte musuma saaga damay saaga en privé damay Assane Diouf ba mu sa sap gën ko wex dégager lépp lu lu ne si man mais en public je n'insulte pas mais en privé kii si France pique ñun ñëppay saaga en privé kon bu leen ma yëngal ma jël kii nekk Allemagne la nekk xaw ma fu mu nekk